mbokk yi compagnie Serigne Seck Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbindu bi dina door benn fan ci weeru janvier 2021 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru janvier 2021 li bees ci jongante bi nag amal Fall jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dina ñu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépôt la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. anta bi ni'mati rabbika bi majnuun du mën a am équilibre bu amul équilibre yëg-yëgu responsabilité bi ñuy wax day des moo tax moom mën na koo fowe wala sax jubluwu ci fo wante conformé wuñ ko du xam li mu yor mooy lan lu mu toll ak lu mu ko war a téewee day diis ci moom moo tax sunu boroom dafa wax si aaya alxuraan ma càmbar ko ma xool aaya bi ma daldi ci génne yi ma wax nii ne xëy na yi ak yu ni mel moo tax yàlla waxe nii dafa wax kallaa inna al insaana la yatagaa an ra'aahu staghna doomu aadama mën naa dem ba yàgg mu gis boppam ne moom am na xaalis walla am na daraja walla am na nguur walla am na wàccuwaay ak yu ni mel yàlla mu ne kalla pour jazb intibaax pour xëcc nit ñi ñu déglu lu muy wax innal insaana la yataxa nit day bew an raahu staxna para jàpp na ne léppam mat na jàpp na ne léppam mat na an raahu staxna mais la ca topp mooy indi tawaazun mooy indi équilibre mooy inna ila rabbika rujaa inna ila rabbika rujaa soo xamee ne am nga xel nga xalaat ñaareelu pàccu aaya bi moo lay équilibré moo tax soo amee daraja inna ila rabbika rujaa bi mooy tax nga mën a dund ak moom mooy indi responsabilité bi soo amee nguur noonu soo amee xaalis noonu soo amee wér-gi-yaram noonu soo amee kàttan bu mën a doon inna ila rabbika rujaa mooy def équilibre pour nga mën a taxaw fekkee ne yàlla dimbaliwuñu ci lu mel noonu doomu aadama bi li yàlla njëkk a wax mooy am an raahu staghna loolu doy na ko man daal jekk naa wér naa am naa doole am naa alal am naa kàttan lu ma neex def nit ñi déggal nañ ma loolu aaya boobu dafa am solo maa ngi ko indi ci buntu sens de responsabilité ngir nit ki yëg lan mooy responsabilité responsabilité ba tey secret la maanaam sirr sirr la boo xam ne sunu boroom daf cee dëxëñ teral bi mu teral doomu aadama suñu xoolee beneen aaya alquran yàlla wax ne wala xad karramna bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbaxr wa radaqnaahum min altayibat wa faddalnaahum ala kasirin mimman xalaqna tafdila teraanga mu ngi noonu wala xad karramna bani aadam dama teral nit yow li nga war a laaj dañuy wax laaj boo xam ne mooy imposer boppam mooy yàlla nu ma terale loolu yow yaa koy laaj nu ma terale tàggatal nañ la jéeri ji lu la neex def tàggatal nañ la géej gi dégg nga eh, am nga am nga wërsëg xéewal yi bari na lu la neex jëfandikoo waaye nag la mu tëje aaya ba eh, loolu mooy indi équilibre bi wa faddalnaahum ala kasirin mimman xalaqnaa tafdila mooy miisatul aql xel maa leen gënal nag ci ñi ci des ngëneel lu rëy yow boo xalaatee si wàllum li ñuy tuddee yaram boo xoolee ñi nekk ci bar jéeri ñoom dañuy dund am nañuy loxo ami tànk wala am na ñeenti tànk boog am bopp am noppa ki yooyu yooyu nit am na ko te ñoom ña ngay dund kon ci xéewali sunu borom yi lañuy dund la ñuy dund wa razaqnaahum na tayyibaat mala yi dugg nañ ci soo demee ca géej ga ña fa nekk tàggal nañ ko doomu aadama moo ci ëpp doole waaye ñoom it ña ngay dund kon loolu xéewal la ci ñoom lan la doomu aadama am te ñoom amuñu ko ngir yàlla tëje aaya bi wa faddalnaahum ala kasiirin mimman dii la mooy miisatu al aql xel xel xel équilibre bu am doole la nit ki il faut mu jëfandikoo ko pour tane ñi ci des wa faddalnaahum maa leen gënal ala kasirin mimman xalaqna tafdila lu mu war a doon xel ndax xel moo wuutale mala yi ak doomu aadama yi kon suñuy wax ci sens de responsabilité teraanga ji yàlla di wax équilibre xel moo koy dékku moo koy mën a téye waaye du yaram kese du yaram kese ndax bu dee yaram kese nit ki day day def leneen am na si benn xalaatkat même bu fekkee ne xalaatkat la xëy na xamuñu ko ci diine waaye la wax am na solo mu ne al aql huwa afdalu al ashyaai xismatan bayn an naas xel bu ñu doon wax yàlla ku maandu la ñu ne yàlla ku maandu la ñépp ne waaw ñu ne xalaatal soo doon firndeel maandoom foo koy def nga ne xel koo gis muy dox sunu boroom may na ko xel léeg mu sonnal boppam ngir xel mi mën a génne dara léeg-léeg mu tàyyeel ngir xel mi nelaw waaye am na ràññeeku boobu moom am na ko mooy xel mu ne yàlla daaw daal boo doon méngale maanduteem su la neexee nga ne jumtukaayu xel rek doy na misaal al aqlu huwa afdalu al ashyaa xismatan bayna naas kon nit ki dafa war a jëfandikoo xelam pour mën a am sensu responsabilité bi ñuy wax naka noonu xel mooy tax société dem ci kaw ci kanam mooy tax mu avancé mooy tax jàngoroy société bi mën a wér jàngoroy société bi waxuma ko jàng de da ngeen may topp si tàmbali waxuma jàng ndax mën ngaa jàng te doo mën a régler problème mu sa société parce que formation bu desee nag man maa ngi wax ci masuliya ma ne masuliya doo jàng rek yem ci da ngay jàng dañ lay former soo amee masuliya nag responsabilité yow di nga kawe dinga nga say problème dana faju parce que li koy def benn ràññeeku la bu nekk ci biir doomu aadama ñu koy tudde xel te xel moomu yàlla da cee maandu lool am na ñu ko jëfandikoo dem fi ñu bëgg am ñoo xam ne daa des léegi dañuy càmbar loolu suñu xoolee li nga xam ne mooy kenn yi nga xam ne ñoo téye masuliya si lislaam am na benn lumb bu nekk ci yaram su baaxee lépp baax su bonee lépp bon mu ne mooy xol ba léegi loolu lay firi mooy xol ndax xol kon mooy commandé mooy def mbir yi mu mel ni kon cër yi nga xam ne yi ci des te du xol cër bu ci ne am na responsabilité wu boppam ndax moo xol ba dafa am sidiit bu leen boole bu loxo bi moyee sàccee masalan loxo bi cër la boo xam ne dafa am sidit bu ko booleeg xol tànk bi bu doxee def lu araam am na sidit bu ko boole ak xol kon ba léegi nit ki ci baat nee na xolam set na xol bi setagul ndax cër yi nangooguñ te cër yi ñoo xol bi ñooy ànd cër yi ak xol ñooy ànd toujours boo ko bëggee tàqale déggin bu des la déggin wu des la déggin yooyu jar naa xoolaat defaraat kon lu ñu bëgg a wax daal mooy euh, responsabilité mboole seen la ngir dund doomu aadama fii ci àddunaam keroog bu ganee àdduna ba ba muy wuy ji boroomam toujours mi ngi ci suufu masuuliya toujours mi ngi ci suufu responsabilité lu mu fi def sunu boroom da koy muxaasaba si loolu ba pare da ko ciy mujaaza da ko ciy xisaab fay ko ci ndax loolu mooy loolu mooy principe bu lislaam lislaam ñoom dañu ne al masuliyatu fardiyatun responsabilité ku ne sa bopp lislaam loolu mooy principe laa wax lislaam dañu ne responsabilité ku ne sa bopp wolof sax dañuy wax loolu mu nuroog mabda boobu ci lislaam maanaam principe bu lislaam lu waay def boppam lu waay def boppam wolof yu xóot la yoo xam ne moom moo dëppoo ak li islaam gëm mooy al masuliyatu fardiyatun nit ñi na ku ne def lu baax ndax loo def yaa ko moom na ku ne moytu lu bon ndax loo def lu bon mi ngi ci sa kaw loolu loolu mooy loolu mooy mabda islaam yi loolu mooy principe bu